D'accord, euh, maintenant on allons cadre euh, hip donc on va parler un peu de l'actualité. Donc, euh, l'angle je ne sais pas, sénégalais, euh, par rapport à la mort étudiant, c'était hier, juste pas avant-hier. Avant-hier, le monde Mohamedou Seigne Fallou Sen particulièrement man daf may gëna affecté parce que dama dëkk euh, Djourbel je suis de Djourbel après mom mu ngi bok ci région bu Djourbel ba pas dans le département de Djourbel mais dans le département de Mbacké parce que bo génnee Djourbel di dem Touba Patar foofu la dëkk même pas 50 100 100 maisons ah ñoo nekk biir <coughs> benn village euh, ki ñu njëkk a Djourbel Diourbel mu ngi tudd euh, Bassirou Fay mu ngi dëkk ben village bu tuddu Ngolombit so génnee Djourbel moy fiñi tanké ndox pour gasi donc li ma bëgg wax fofu mom moy état bu Sénégal dafa am yenen priorité yu wuuteeg njàng mi boo bëggee sa réew développé da ngay investir ci sa ay ndaw te say ndaw léeg-léeg ñu nekk ci yenn guuta wala situation appauvri appauvrissement jàpp leen ba au lieu que ñom ñu yaakaar ci sen parents yi ngir ñu defal len waaye ñom sen parents yi ñoo leen di yaakaar pour sen bourse yooyu ñuy jot chaque fin du mois ñu jox len xalé bu nek Dakar giso papa giso tante giso tonton giso yaay Amo benen activité bu dul xëy dugg ci daara jang genn imprimer ngay soxla wala lo lek fuk ak juroom fanwer munoko ko am nga dem ba le 15 munuñ la jox sa ticket gor nga da ngay rusa taxaw ñaan bo fippoo nañ la déglu xam sa jangoro ñu safar ko mo gën sox yi ñi sox diko jëmele ci xalé yi ndax buñu rayé avenir u mi mi dañu bëgg ray suba motax ñuy fagaagal xalé yi. ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était en 1962, on a tué un étudiant. En 2002, euh, on a tué. En 2001, Balagay, l'étudiant a été assassiné. Mamadou Diop a été assassiné. Il était étudiant, mais s'il y a un contexte là, mais il a été assassiné par un dragon. Nous dit que a été assassiné Mohamedou kan ci top. C'est la grande question qu'on a qu'on a vraiment envie de poser aux autorités de ce pays et je m'adresse direct à monsieur Alingou de Ndiaye gendarme